baax na mm-hmm. bi mm-hmm. euh, xam-xam de nañoo wax ne mooy diine ndax sunu boroom lim gën a bañ mooy réer mm-hmm. ndax réer mooy safaanu xam yàlla bañ ku réer moo tax li bindee bindee fii am lu bëgg ci ñoom daa sàkk ay ndaw ngir ndaw yi xamal leen ndaw it booyeelu leen waaye da leen a jox ay ndigal mhm. ay téere leen jox téere ya xam-xam moo ci ne mhm. bëgg ñu doon ko jottali nit ñi ku fi ma sa jaar rek euh, sa liggéey moo doon jottali ndigalul yàlla mhm. kon yàlla bëgg nit ñi xam ko ndax ñu man koo def loolu lañ doon jottali ba yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mujj kon fi ma jaar rek euh, xama tax dañuy wax sax ne daanaka lépp lépp bëgg nit ñi xama tax allahu alladi xalaqa sab'a samaawaati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu l-amru baynahunna mhm. li taalamu dafa mhm. war ñu sukkandiku ne lépp yàlla da ko bind ngir bëgg ngeen xam mhm. xam ko moom yàlla xam li mu santaane ñu mën koo def li mu tere ñu man ko bàyyi euh, tey ci diine it boo ko seetloo euh, lislaam bi nga xam ne mooy diine yàlla euh, bu ñuy wax xam-xam mooy diine ndax baat bi njëkk a wàcc rek yàlla asamaan ak suuf jokkoo ci mooy baatu jàngi ko jàngil lañ santoon yonent bi alayhi salaatu salaam jàngil lan mm-hmm. iqra ji lépp mm-hmm. waaye li am solo mooy na nekk bismi rabbi mm-hmm. jàngal loo xam ne boo noppee dalay gën a jegeel sa borom day tax nga gën a bëgg sa borom day tax nga gën a topp sa borom ko bépp xam-xam bu am njariñ xam-xamu diine tey lépp nag ci lay sukkandiku moo tax sëriñ bi ñëwee foofu la jaar ndax moom liggéeyam weesu wut yeesal li yàlla wàcce woon ci yonant yi bañ jeexee ay borom xam-xam wuutu ba mu agsi ci moom wuutu ñooñu ñëpp nag nekkal fi yàlla ci njaboot gi ak ci diine kon mbiram xam-xam mënu ci ñàkk a jiitu ndax xam-xam moo jiitu ci diine moo jiitu ci diine nag ab wooteem xam-xam ci jiitu wos yi ko taxawale wosu xam-xam ci jiitu ndax ku xam moo mën a xàmmee liñ ko sant ak liñ ko tere mu mën a def ndax fii ci àdduna lañu ñu fi indee weesu lool. def mhm. ndigal ay bàyyi tere. Mhm. ku ma sa raw ci loolu rawee. Mhm. loolu nag mënoo koo def te xamu ndax yàlla lim gën a bañ bokk na ca koo koy làmbut. bañ làmbutu ma waral yooyu ñu wax yëpp. yonent yi li ñuy màgg màgg. duñ fetal waaye dañ leen wax ne jaar leen fii. lu ma sa ñëw te wax yu wàccu ca. dañuy xaar ba wax yu ñëw ndigal ñëw. ndigal yooyu nag lañ bàyyee nit ñu baax ñi ba Sëriñ Tuubaa ñëw doon na ko ci ñoom. ci ay mbindam lañ ci fekk lépp mooy. wane ne loolee mu jëlee ci yonent beeg ñi fa wutoon yonent bi mhm. loolu la doon jottali xeet wi di leen ko yaatalal waaye bëgg ñu mën a jariñu ñoom ñëpp ndax boo léegi ñu mën a mucc mën mhm. ñu wax ne xam-xam daal mhm. mooy laltaayu yi nga xam ne moo ñu war ñun ngir ñuy defee ko xam-xama ci jiitu adduna ji rek ñëpp xam nañ ne mbir mu ne boo ko xamul mënu ci jariñu yi am njëriñ yëpp da koy xam door ko mën a jariñoo kon lu am solo la loo xam ne euh, war nañ ko bàyyi xel baax a baax moo tax sëriñ bi mu rëy ci moom lool mbooleem ay ñooñam ak barab bu mas a nekk nañ jàpp ni xam-xam a tax hmm, fii Tuubaa tedd gi moo waxal boo boppam li tax mu sanc ko woo caxlu da aban maskana taallumi mooy ku fi dëkk da ngay des di xamlu hmm. ak li bàyyi koo ci xamlu mooy boo xamee ba noppi nag nooy jariñoo xam-xam bi noo koy balle ba mu mu gën a yaatu gën a mën a tasaaroo ba hmm. mu di al fikrati wa tafahumi kon mel na ne loolu daal wàccuwaay bu rëy rëy la sëriñ mhm. Lamine ci euh, ci xam-xam ci tudd nga léegi maanaam sëriñ bi ak euh, xam-xam euh, ak fi nga xam ne foofu la ko tegoon ak ni mu ko ñore woon mhm. sëriñ bi ndax bi mu ñëwee fekkoon na fi xam-xam ay xeeti xam fii ci Sénégal wala sëriñ bi mhm. dafa ñëw ci diine ci ci ci bii ab diine la ñëw xam ne mbaax ak gëm yàlla ak ko ak doyloo ko ak nag liggéey ci diine loolu la fekk ci loolu la fekk kon nag ci li ko yàlla gën a baaxe mooy fekk jaww ju baax mu feeñ ci mm. ñëw nag daf lu gën lépp ndax ñim feeñ ñëpp xam-xam la woon sëriñ Moussa Ka mi koy wax ne maam yi ci mbusoo bi xam diine goree leen te jubóog lam toora mm-hmm. xam na it histoire maam maharam mm-hmm. li ko indi euh, jolof ay maamam mm-hmm. moom mu ñëw bawol lépp weesuwut jàngale ak yare ay ndénkaanam yi mu bàyyi woon ba mu fii ñëpp jógee it li mu dénkoon njaboot gi bokk na ca na leen xam-xam ñor ak jaamu yàlla mm-hmm. kon euh, sëriñ bi loolu la fekk waaye bi mu dikkee nag jaar na fa ku mas bëgg xam-xam di jaar muy jàng mm-hmm. daj ci loo xam ne it néew na ku ko daj mm-hmm. xam-xam jaraloon ko it néew na ñu mu ko jaral boo demee ci an-Nubzatul Mubaaraka mhm. Cheikh Mamadou Lamine Diop Adagani radiyallahu di ko di ca leeral mhm. njëlbeenu sëriñ bi ci wàllu xam-xam da nga yëg ne mhm. euh, yitte xam-xam war su ko jox yitte maanaam sëriñ bi àggoon na ci foo xam ne li mu ko jaral jarul ñu ko bari euh, misaal mi ci joxe rek mooy nee na téere bi mu njëkk am téere bi mu njëkk am téere bi Imaam Xasaali la boo xam ne li ko ko may daa gis benn naar bu ko yor mu ne ko bëgg naa téere bi mu ne ko dama koy jaay mu ne ko loo koy jaay mu ne dërëm mhm. boobu dërëm yombul sëriñ bi ànd ak moom ne ko nañ dem mhm. sëriñ Modou Lamine nee na daawut dem di laaj kenn day ñëw rek di taarut di nafaxaatillah seeti mel ne mbokk moo xam ne taalu bi Mamoor Anta Sali woon mhm. di ab yaxantukat bu mu leen gisee waaye melokaanu sëriñ booba xaw naa doy waar tax mu daal koy jox mbubb mu rafet ne ko mbi summi ko sànni ko teral leen bàyyi la muy dem waaye nag joxu leen leneen mm-hmm. biñ génnee sëriñ bi ne naar bi ndax bëgg nga mbu mi ma jox la ko te nga jox ma téere bi mm-hmm. mu ne ko waaw mu daal dem bu moom foroon ci sën ba solaat mm-hmm. jël mbu mu mi jox naar bi mu jox ko téere bi mi bidaayatul hidaaya imaamul na téere boobu la njëkkam ci téere ginnaaw bi ma jàngee aruut jàng na ci lam jël waye ko mu nekk mu lay na sudo loolu yitte ju kawe la. Mhm. ci jamono jooju nga xam ne boobu téere amut. lim bind ci ay téere it nga xam ne booba yàlla da ko def mën a teel a mën a bind. fu mu dégg ab téere dem fexe ba am ci ab day bind ko. wax na it ci boppam. boo xam ne moo ko nettali sëriñ Mor Lim tudd téere boobu ne. fànn ko arut daanaka li ñu waxee moo ko jàngal boppam. nee na Mamour Anta Sali moo ko dalal. waaye dañoo toog tuuti rek Mamour daal di wéradi jàngatul. Mhm. nee na mu gis menn mbokk mu yor ab chara boo ne imaam ak damaam yi ni moo ko def sara xasar ji la mhm. téere bu xam ci la mhm. nee na mu laaj mbokk mi ne ko foo jëlee téere bi mu ne ko daal menn mbokk mu toolam booyoor mhm. moo ne woon ku ko bayal toolam ma jox ko téere bi nee na mu bayal ko mu jox ko téere bu fayee ko sëriñ bi ne li tax ma di ko laaj mooy bëggumaa jàngee ci téere bu am lënt bu ko leeree ne waa ji fi mu ko jëlee léeru nee nee na téere boobu laa jël bu muy xëyee dem ci tool yi ndiir si Mamour tëdd bi mu tanee laaj ma ba xam ndax yaa ngi doon jéem a jàll ci téere ba la déet ni ma ne ko waaw nee na mu ne ma indil ma xool nee na ma ta tànn ci ñetti bayit wala ñeent saraa ko waxal ko shawahid yaag lépp uh-huh. mu ne ma ah lii de xaw ma ku ko dégg nii ci jamono ji ku lu xaali mu jaxati kala kon mën na jàpp ma ko jàngal boppam uh-huh. yitte ju kawe jooju uh-huh. la jógaale ci xam-xam ba yàlla jox ko ci cër boo xam ne mosuñoo xam ku ko jox mu dund ko nit ko dundal ndax musta tàggoo xam-xam mhm. àggoon na ci ay jamono nee na day dajale ay xéewal naari ganaar yu daan ñëw ci Mamor ñëw ci dëkk bi muy ànd nag muy dem fexe ba gis leen mhm. di leen jox ci xéewal yooyu ngir ñoom ñu di ko jox xam-xam yu yor yëpp muy dajale nag bu noppee segg la ca gën mu jël ko mhm. te ku xool mbind mi dëgg-dëgg da xam ne te ku mës ku mës génn dig bi buñ la nee xam-xam bi ni mu yaatoog ni mu selleeg dana la xaw a jaaxal waaye yitte ju kawe ji mu amoon moo taxoon sëriñ bi yàlla jox ko cër bu rëy boobu ci xam-xam mu tàmbali nag di ko dund di ko mm-hmm. dundal mm-hmm. noonee mu ko doon amee noonu la ko dundee mm-hmm. ku teel a yéeme la ci fegu ak ñoom ndax xam-xam dafa am lu mu laaj du lu ñuy foyee du lu ñuy sàggane seen soxna mas na ni doomu bàjjen def rek naan sëriñ bi daal ni muy muuroo nii nanguutu jaxasoo kenn daal daal di jàpp ci mbubam mu romb ko rek mu tëj ci mbuuy ne ko tey da nga wax ak man sëñ bi xëcc xëcc mu kii saat suñu defoon ci jibaam la di nit dagg dagg loola bàyyee ko dañ dem <laughs> nit ñi xam ne kii nag kii bokkut ak nit ñi woy juróom ci boppam teel a bàyyi xel loolu teel a gis loolu ba tax mu waggar ko nu nguur bu dem fenn fu mu ko tàgg mu tere ko ba wax na moom sëriñ bi ne am na jamono bu xaw a jaaxle ci taxawaayu Maam Mor ci moom mhm. waaye benn bis Ceerno Ibrahima Kan moo fa ñëw Thierno Baba Kane moom lay mooy turandoo maam Thierno Birahim moo yeesalal mag ñi fi wirdu xaadir bi mu fi ko ganesee bay dellu nee na ba tolloog nekk sëriñ bi nee na maam war ne may leen ma damaa soxla Thierno daal di joxañ sëriñ bi nee na maa ngi kinee bi waaye dañoo delloo bunt bi sëriñ maam oran sëli xamul ne maa ngi kinee bi nee mu ne ko nii bi daal sama doom ji fi nekk moom la ëpp yaakaar ci sama njaboot daa bëgg nga ñaanal ko dara bañ koo dog bu màgg fi mu jëm mu ne ko anam mu ne ko ah, bunt bi de daa dellu nee mu tàllal ñaan ñaan ne ko incha allah danaa fi mu jëm sëriñ bi nee na booba laa xam nag ne ndekete maam moor nii mu bañ a may bañ a ma génn fenn bëgg ma sàmm ak bëgg maa rek la dana na ko yàlla fay loolu taxawaay yu am solo yoo xam ne ci njëlbeenam moo tax kon mu teel a ñor ci xam-xam teel a taalif ay téere yi mu njëkk a nga xam ne ay fukki at ak juróom-ñaar la da nga yëg ne kii ci jamono joo xam ne bii bi mu nekk xam-xam sax tasaaroo fi ci ay rafetaay gi foo ko teg weesu bari na lool yoo xam ne nii eh, yu mag yi siiw nii waaye jiitu na loolu maraas yi mu doon def ak eh, mag ñi doon ñëw ci Mamadou Moussa di ko gende ko di wax ak moom ak xaside yi mu njëkk bind boo gisee da nga xam ne ku teel a dëgg la ku teel a géeju ci xam-xam la mhm. te yitteem ju kawe mhm. ginnaaw ci cirub yàlla bi ak jagale gi nag mu mhm. ngi ci biir kon lu am am solo la loo xam ne ah.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 xabaar yi ngay dégg muy xew ci barabu jàngukaay yi. di xew ci ba ci daara yi. da xam ne am na mbir yuy xew yoo xam ne nii. ko am nga tuuti la setantal euh, da nga jaaxle. képp koo xam ëllëgi réew mi yitteel na la itam ëllëgi liggéey bi yitteel na itam da nga tuuti. ndax boo xoolee ni ñuy ci kaw jàngalekat yi bu suñ kon suñu bàkkee waxee cër bi nga xam moom la ñu war a jox jàngalekat ak ji ñu a jox xam ni ko sëñ bi jàngale ni mu ko dundee woon defe naa ne wuute na lool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 sëñ bi wane na ci yoon bu bare bari yoo xam ne yaakaar bu ñu ko gën a jàngat danañ ci gën a mën a jëriñu ci lu wér waaw kon ñu daane foofu ci kaw jërëjëf sëñ Fallou Bousso Assane ñu ngi lay santaat bu baax a baax yaakaar naa euh, tegtal yi nga joxe ak bind yi euh, am na solo lool macha allah te nag lii euh, tey fi ne boo ko dégloo muy wax da nga naan bu fekkonte ne élèves yi am nañ syndicat national des élèves danga nga naan boo demee moo leen jiite ndax li muy wax dafay doon loo xam ne dafay dimbali élèves yi dafay dimbali ki nga xam ne day jàng dafay dimbali ki nga xam ne day sàkku xam-xam waaye day dimbali aussi ki nga xam ne si moom mooy jàngale ci boppam ngir mu mën a nekk ci condition yu baax yoo xam ne euh, dana mën a doxal liggéeyam ci ni nga xam ne si noonu la ko bëggee ngir élèves yi mën a gis seen bopp bu baax a baax ci njàng mi te dana réglé waat ay problème bëree bëri yoo xam ne dañ koy gis ci euh, Sénégal euh, te yaakaar naa ci problème yooyu sax nag la ubbee muy ay problème yoo xam ne sii bu ñu ci jël ay mesures boo moytu mën naa gën a jëm kanam te loolu dafay gàllankoor xam te euh, doonu lu gën sëñ Mouhamed Lamine xam naa dama lay bàyyi euh, su ko defee nga mel na ku ma ramasseel rek li sëñ Mbacke Abdourahmane wax ak euh, sëñ Fallou Boussa Sène su ko defee soo paree it introduire sëñ Gana Messere ak sëñ sëñ Fallou sëñ Sall sëñ mhm. su ko defee ñu mën a avancer ci sëñ Ibrahima la nga xam ne mi fi toog mhm. ngir yëkkati ñu xasida ok jërëjëf ñuy sant bu baax sëñ Mbacke Abdourahmane mhm. ni mu ubbee ak sëñ Fallou Bousso li ma koy tënkee rek mooy tey li lii nga xamante ne wax nañ ko mm-hmm. mooy fi Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Tuubaa mm-hmm. toll ak xam-xam euh, yàlla dogal na bariyaa na ay gan ñoo xam ne mm-hmm. ñu am solo lañu di ñoo xam ne ay jàngalekat lañuy wala ñu ay professeur yu mag am na professeur bu ñu ci mujjee àndal boo xam ne day jàngale États-Unis di jàngale France di jàngale Royaume-Uni mhm. di jàngale ci réew mu mu nekk di jàngale Allemagne mhm. waaye bi mu ñëwee yàlla dogal na sax mhm. dafa fekk sëñ bi fatu waaye daf ko dafa ni ginnaaw ci sëñ Touba la jëm si te Touba moo ko tax a jóg fexe leen ba yóbbu ko fa waaye bi mu yeggee ci université bi nga xam ne moom la Cheikh Mourou Mountakha di di tabax maanaam nee na kii de euh, deseelutul lislaam dara ndax réew mu toll ni Sénégal mm-hmm. lu mel ni mën fee am mm-hmm. te du ñu ne nguur gee ko fi def mm-hmm. ay dongo rek yu yaakaar sëñ Tuubaa ñoo takk seen ndigg mu jiite leen ñu def lu mel nii am na réew yoo xam ne de loolu tëna kon moom yaakaar naa lii sëñ Fallou junj ak sëñ Mbàkke Abdourahmane dégg na ko ku gis tabax yi muy tabax gis karo yam cay def gis ascenseur yam cay def bu dee étage la gis maanaam condition ya su doon sax maanaam ay barab la yu ñuy soxlawoo ci waajukaay nga xam ni sóor nañu ba sóor ci koo xam ne yàlla mën naa dogal mu am laago kon day wone fi jamono tollu moom raw ko kon moom yaakaar naa darsu boobu lii sëñ Fallou di wax moom moom mooy misaal beneen bi ci des mooy euh, ak soññeem dégg naa ko ci woote bu mu woote màggal boo xam ne ci biir waxtaan dafa ni xam-xam ñuy daf ñuy defaral suñu suñu lépp waaye du ñuy du yàqal dara suñu taay bi lañuy ñuy jëkk a defaral ak suñu xam kon jombul kenn amul kenn koo xam ne war naa am nenn noo toll ba jàpp ne xam-xam wàcc na la mhm. loolu nag sëñ moo ko daan wax nangoo nañu ci Cheikh Saliou Mbacke mu wax ne mhm. sëñ de daan wax jamono yi nga xamante ni ci ak mujjam mhm. ci njaareem ku ko mësaan indil sa doom dafa naan soo demee nanga ko yar jàngal ko te liggéeyloo muy loo xamante ni tey euh, gis nga ni tey sax mënees na ni euh, mu jama bii sëñ bi di tabax. bokk na ci bàkk yi nga xamante ni ku ci ñëwoon. bu ñu la ko doon tëngal ci ñaari baat dinañ la wax xam-xam bu am njëriñ. ak jëf ju am solo joo xamante ni ju sell la. Uhuh. waaye itam nag ay teggin yoo xamante ni ñu gërëm la. Uhuh. kon loolu yaakaar naa ni moom. jàngale sëñ bi mën naa mën na mën naa tënk loolu euh, dama ci doon barkeelu ko waaye kilifa yi li ñu ci wax moom <laughs> <laughs> macha allah <laughs> am na solo loolu te sëñ Tuubaa loolu rek nag moo mës a doon ay soññeem dafa am juróomi woy yoo xamante ni da koo bindoon wax ne ci tarjumaan ji dama koo bind ngir doomi samay mbokk mu tàmbalee ko ci ne li ma leen di digal naa leen ngeen di sàkku xam-xam boole ko teggin ak jëf ju yiw te wattandi ko fo ndax xam-xam dalay jariñ réer dalay lor mhm. ñàkk jëfe li yàlla digle mhm. day xañe ab yool bari fo day sànq ak dund mhm. kon dee leen farlu bu ngeen wéetee ak bu ngeen wéetaliku muy dénkaane boo xam ne day mel ni lépp dugg na ci dugg dugg dugg na ci biir kon ni nga ko waxee rek ba sëñ gànn euh, yaakaar naa dégg na euh, waxtaan wi dégg na itam soññe bi ñu jëm ci bis boo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général des Mourides moo ko wootee muy bisu xasida muy woote boo xam ne da ko ñor lool jublu gi itam mu wax ne dafa bëgg jàngkati xasida yi ak fu ñu mën a ne ci réew mi ku ci sam njàng wér moo xam njàngum kuréel ngay jàng walla njàngum yëkkati wala njàngum durus nee na ñooñu ñoom la woo mhm. bi mu leen wooyee it ab liggéey la leen di doyee ndax moom ci boppam moo génnee waxtu yi juróom-ñaari waxtu ba juróom waxtu ci ngoon mhm. diggante boobu nag ku jóg te farata rek tax laa jóg mhm. day mel ni dara waru cee mën a xaj sëñ Gana kon loolu mhm. ñi ñëw jëm si ci fànn googu ak jëfe ndigal sëñ bi tax leen di jóg ndax sëñ bi tey euh, ku ne gis na ni euh, bu soxla woon ñu yeesal euh, parenteeru daayira kaamil yi daayira menuisier métallique yi ñoo koy ñoo koy bu jublu woon tabax leneen daayira maçon yi ñooy jóg def ko bu jublu woon euh, euh, ne nañu def làmp fenn daay électriciens yi ñoo koy def waaye bi yoon moom ëxlu xasida la woo ñiy jàng di durus di yëkkati di leen doyee ab liggéey bu leer boo xamante ni ñor na ko lool euh, jërëjëf Cheikh Mamadou Lamine jërëjëf sunu kilifa yi ubbi bunt bu am solo bi nga xam ne mm-hmm.